ak relation bi nga xam ne moo doxoon ci diggante bi tam rafetoon naka jekk ginnaaw loolu ci lu gàtt rek ni ko suñu eh, kilifa sëriñ cheikh mbàkke ñang waxe danañ ñëw ci al alaqat al akhawiyya bayna zu'ama al furuq al sufiyya fi sénégal muy mbokkoo ak diggante yu rafet ak jëflante bu rafet bi nga xam moo doxoon ci diggante kilifa yi nekk ci biir tariqa yi ci Sénégal nañ ko doxale démb ak tey insha allahu taala ci lu gàtt di ci eh, sant bu baax itam suñu mbokk moo xam ne noo ànd te mboolem yi nga xam ne kilifa yi jëflante nañ ko ci démb ci ay bindante mu dajale ko ci gëstu bu am solo muy sëñ Mbacke Diop Khouda te mën nañ ne mboolem li nekk ci delluwaay yëpp dajale na ci benn bërëb yombalal suñu classe gi nga xam ne ñooy ci ñu mën gaaw àgg ci yu am solo yooyu ay yi nga ci rek wax ci dafa bëgg ñu ànd dafa digle ba tey ñu ànd doon benn kenn ku ne li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne sax ne sa ngëm balaa mat li nga bëggal sa bopp da nga koy bëggal sa bopp julit ci biir alquran gis nañ julit bi nu mën mel rek yàlla da ko tuddee ne seen bopp la ki nga xam dafa rey ab julit ci kaw eh, njuumte gis nañ suñ borom bi mu koy lijjanti ca la ca war lañ war a jokkalante ci ay diir ak la ca aju dafa wax ne ki rey mbokkum kamu la loolu la ñuy dégg ci li wax ne fa man ufiya lahu min axiihi shay'un fattibaa'un bil ma'ruuf nga xam ne doonte def na njuumte rey nit teewul mbokkum ki mu rey la ba ci bi muy wax rëyaayu jëw ak la ca nekk gis nga téewul kii jëw da ko tudde ne seen bokk nag ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan bu ñu demee yowmal xiyaam itam ba dugg aljana yàlla day seppi mbooleem li xajamal ak mbokk ak mbokkoo ak ànd ci suñu xol ñu def ñu ñuy ay mbokk yu ànd yu seen diggante dëgër mooy li mu wax ne wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin kon alquran dafa dénkaane ñu sàmm ànd bi ñu sàmm mbokk gi ñu sàmm diggante yi wax na itam ne na ngeen moy ci buumu suñu borom gi tabaraka taala te bu leen teqale ko ndax bi ngeen ni xéewal li wax ne واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا lu bare bare rot na ci ci alquran ak sunna sunu nabi sallallahu alayhi wasallam yoon nabi daan wax ne kunu ibadallahi ikhwanan al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdhuruhu wa la yahqiruhu julit jullit bi mbokkam la ak nu mën a mel gis nañ rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee bi ko yàlla yónnee lam njëkk a def mooy boole nit ñi ca Màkka la ko tàmbalee boole diggante sayiduna Hamza ak sayiduna Zayd Zayd ibnu Xaarisa radiallahu anhuma moom ci boppam mu def sayiduna Ali muy mbokk boppam ba ñu demee Madina munawwara itam gàddaay kenn ku ne ci ñu jóge woon Màkka dalaa boole kenn ci waa Madina muy sa mbokk ñu war mbokkoo ci ñetti mbir booba ànd ci dëgg di te doon benn ba ku ci faatu sa morom doon si imaamul Buxaari wax na ci xadis Ibnu Abbas ginnaaw bi mu des rek bi ak la ca waaye daanañ àgg ci ku sa morom doon la loolu bokkoon na ci ci euh, suruti mbokkoo bi kon lislaam dafa yàgg bëgg nit jullit ñi doon benn ànd dëgëral diggante yi gis nañ mboolem li yàlla farataal ci jullit ñi luy boole nit ñi la julli dañoo bëgg nit ñi di ko daje ci jàkka ji waa koñ bi ñooy daje ci benn jàkka waaye bu àjjuma jotee koñ yëpp wala koñ yu bari ànd maas ñëw ci jàkka jumaa ju mag yi bu ayit jotee waa dëkk bépp ànd maas daje ci benn bërëb aj màkk jotee àdduna sépp jullit yépp dajaloo dajaloo ci benn bërëb loolu yàlla daa bëgg nit ñi doon benn ba ci yeneen farata yi du mel ni asaka luy boole la day tax fuqaraaw yi ñi ñàkk bëgg ñi am koor noonu la luy la ndax di bàyyeendoo lekk di dogandoo di defandoo lépp suñ borom yëmul ci loolu dafa digge yu bari ci bu ñu àndee te dëgëral bi bokk na ca ba yonent bi wax ñi mos neex yi ci ngëm dëgg-dëgg lim na ca an tuhibba al mar'a la tuhibbuhu illa lillah nga bëgg sa mbokk te bëgg gi ko bëgg yàlla kese tax loolu bokk na ci liy maye xalaawatu al iman billahi subhanahu wa taala bokk na ci liy tax yàlla bëgg mbooloo mu mën di doon mooy ñu ànd dëgëral seen diggante te loolu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadisu qudsi bi suñu borom waxee ne wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabadirina fiya mooy yi nga xam ne mooy taxaw ànd jag mooy di seetante di jataayoo di sotante xalaat bëggante te yàlla tax di jokkalante ay teranga loolu ñi koy def yàlla da leen di sopp ñoom mbooloo moom yowmal xiyaam sax buñ demee ba bis penc ba mbir ya metti ñi yàlla wutali ker bokk na ci ñi nga xam ne dañ daa dëgëral seen diggante ba mu wax samaatun yudilluhum allahu fi dillihi yowma laa dilla illa dilluhu yonte wax na ca wa rajulaani taxaaba fi llahi ijtama ijtamaa alayhi wa tafaraqa alayhi kon diggante bi ak diggante yi ñu dëgëral ko dëgëral relation yi nga xam ne moo dox suñu diggante loolu yàlla da ko digle te mën nañ ne mooy lislaam ku ci dox yaa ngi dox ci luy dëgëral lislaam bu ñëwee ci sunu sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu moom mën nañ ne mooy ki gën a dox ci luy defar diggante yi def na ci jéego yoo xam ni neexut a gis keneen ku ko ci defar ndax Sëriñ Tuubaa lam jëkke mooy ñim yilif da leen tënk ci digal leen bu kenn gis kuy wax laa ilaha illa nga koy noonu loolu bokk na ci effort yi nga xam ne bokk na ci li nga xam ne bu ko ñëpp defoon rek jafe-jafe du gaaw am suñ tubaab wax ne la wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah yi ñuy man a teqale itam suñ tubaab daal taxaw ci kanam yooyee lu mel ne ngiir yi yi كي مالكي لا كي شافعي لا كي حنبلي كي حنفي لول سيني جوبا موم دا فا ليرال بوري نيلن غير ييب يوم يوم نيب بي ساماي كليفا لا تيم تي والو فقه دائما دي في الفقه مالك العلي والشافعي والحنفي والحنبلي باجي يي مانا تخالي دو مينن تاريخا يي بو ديمي با نارا تخالي ني دي لول سيني جوبا دا فا تاخاو سي كارام لول gis nañ mu wax mourid nelen fa kullu wirdin yuridul mourida li hadrati llahi walan yahida سواء انتمى إلى الديلان أو انتمى لأحمد تجاني أو لسواهما من الأقدام إذ كلهم قطعا على الصواب فكلهم يدعو المريدين إلى طاعة رب العرش حيثما جلا بالاستقامة فلا تسخر أحد منهم ولا تنكر عليهم أبدا موي تاريخ ييب تي njub لا نيك تاريخ بو man دون رك بو مان دون تي تاريخ tarixa yi rek xamal ne ak njub ca lañ yëg ne itam ci njub lañ ne bul ci ree kenn bul ci weddi kenn bul digal kenn yow murit bi kon Sëñ taxaw na foofu ci kanam lu mënoon a teqale nit ñi muy tarixa yi yëmul ci loolu sëriñ tarixa yi itam mu wax ni ñoom samay kilifa lañ samay sëriñ lañ masaayixi Sayyidina Jilaani wa Saadali maahu Tijaani ba loolu dana tax murit bi ginnaaw kee sëriñ bi jàppee na ko sëriñ rek moom dana warmal sëriñ boobee sëriñ bi yëmul ci loolu même société bi yii mën a teqale nit ñi nga xam day tax relation yi yàq ci classe sociale yi amoon te xam ngeen ci réew mi ba léegi dafa am ay ay ay classe sociale yoo xam ni métier yi ñoo koy jur ñii ëw ñii yet ñii bay ñii commerce ñii def naa nga naan métier yooyu dafa jur ay classe sociale yoo xam ni si Tuubaa dafa taxaw ci kanam mu yi yi ko njëkk a dafa def ci seen bopp ni benn mbir rek mooy tax nga gën sa morom mooy gën ko ragal yàlla id akramu libaadi inda allahi aktharuhum taqwa bil wa wa واعلم بان ما تفاوت الورى بالعلم والدين يكون فاصبرا موي ngir nga gën nit ki gën ko ragal yàlla kese moo tax nga gën ko bu dul loolu jàppal ni yow gënu ko kon loolu itam lu mënoon a teqale diggante yi la lu mënoon a téye diggante yara tax la suñ jubaa taxu fi kanam kon suñ jubaa boo gisee dundam gépp wala njàngale mépp bu fekkoon murid yi jëfe nañ ko ñoom duñ am benn jafe-jafe ak ñeneen ñeneen ñi itam bu seen sëriñ defoon ni suñ jubaa duñ am benn jafe-jafe ñoom seen njaboot ak seen ak ñi ci des suñ na ci wax ne jullit bi yow murid bi bul ko gëdd bul ko doy bul ko tiital bul ko xas bul ko xas لا تهن لا تنتهر ولا تسب ولا تخوف مسلما ومنه تب بوجي دافي بن تي يوي نكو توبا تا جيغل تي مجموع بي شيخ عبد الله مولون بيس نني فمو واخني جوليت ني نانيو موچ تي سين ايو لوخو تي موچ ايتام تي سين ايو لامي يين مورديو لولو نيغال yëmul ci loolu Sëñ Tuubaa dafa daa digle ne kilifa yi kilifa yi ci des di kilifa yi ñeneen na leen war warmaal mooy li wax ne xibba xubbu jamii al awliyaa wajaba wa kullu man aada alxiyaara xujiba dafa war nga bëgg mboolem ak fu ñu mën a nekke ak fu ñu mën a baaxe ñoom nit yàlla yi معظما لحرمات العارفين قابل اعداء البرايا كل حين نغا ورمال عارفون بالله يب جوخ لين ورما جي يالو يمو تيلو دراو خني صاح بولين ماني زيار نغا لين زيار يو بوري بي فو غيس نيت كوبا زيار وزور خيار العلماء والصالحين واختمهم لله جل كل حين واطلب دعاءهم ومنهم ابد كنت تبركين فتزداد الملا foo gis nit ku baax na nga ko ziyaar loo ko mën a defal ci lu baax it nga defal ko ko tey sàkku ñaanam tey barkeelu ci moom kooku xam nga ne kon duxul diggante duxul diggante ak njabootam ak ñu mën a jëflante ak ñekk des na sax ci wax ne yow taalibe bi bokk na ci li lay rafetal sa taalibe li rafetal say teggin mooy bu ñu la waxee lu ñaaw la xasee na nga muñ wasbir ala sabbi wala tujib ahad wa kun kama qala al adibu wa laqad إذ التسابه مع التكاذب من أقبح الخصال كالتضارب dafa wax ne buñ la dee wax lu ñaaw di la xas ak di la gaañi na nga muñ te bul tontu da ngay jàpp ne kii waxut ak yow keneen lay waxal loolu yaakaar naa ay ndigal la ak yeneen ak yeneen yu bari yu ñu indi woon yoo xam ne firndeel ne Sëñ Tuubaa taxaw na fi kanam lépp lu nar a xajamal ànd bi moom ci moom danaa wax danaa ñaan suñu borom ne ko fa kullu man satamani aw laama fa hab lahu tawbata wa istislaam ku ma wax ab safaan na ko may na nga ko jéggal yow suñu borom tabaraka wa taala na nga ko jéggal am na benn sew sew foofu mooy murid Tuubaa mooy ruuxuk seenu dund nga wax leen lu ñaaw moo gën woyof ci ñoom wax ko sëriñ bi loolu beneen jafe-jafe mooy lu murid yi képp koo xam ne yaa ngi wax lu ñaaw buñ mënoon a waxee yow bala nga bala ngaa wax day leen sax àgg ci man laa neexal nga wax nu ko nun te bañ a wax ci sëñ bi ndax boo xee sëñ bi boo murid du ñu ànd seen sago teewul nag sëriñ bi moom li mu mooy ñu yaatu dënn tey muñ te fexe ba ku la jëflante yow jëflante bu ñaaw nga wan ko yow lu rafet nga jëflante moom jëflante bu rafet wa kun ma an naasi jamia bil xuluqi al xasani noonu la si ñu waaw kenn ku ne da nga jëflante moom ci jikko ju rafet kon loolu mooy gàttalu lii firndeel ne Sëriñ Tuubaa taxaw na fi kanam lépp luy yàq ak luy xajamal ànd bi ba tey bu ñuy wax histoire suñ tubaab gis nañ dañuy dañuy gis ne suñ tubaab jokkoo naan mbooleem ñi nekkoon ci société bi mu doon dund ci tarixa yépp boole ci faw boo dee wax histoire suñ da nga tudd samba tukulóor ka di woon kilifa ci tarixa xaadir da nga tudd cerno ibrahima kan mu nekkoon kilifa moom ci tarixa xaadir da nga tudd cheikh mouhamad sall dengan tuduh Al-Qadi Majah Tekala lekon kilifat tariqat Tijan dengan tuduh Al-Haji Muhammad Darame dengan tuduh Syed Khuya dengan tuduh Al-Haji Malik Si dengan tuduh ku Al-Haji Muhammad Kamara dengan gën Minti min as Kamara bi talibe Serigne Touba bo ci de lañ ba da nga gis ni mbolem société bi mu nekkon ñepp wala fenn fu nit bayiko na fa ci classe sociale yi ya amone da nga gis ci biir ak njabootam abdul Qafur mbaaxaan doon doomi kenn ci buuri kajoor yi kuñu kuñu xam muy lat yoon waaye da nga gis cheikh muudu laam muy ab cheikh bu sëñ tuba da nga gis cheikh samba jaara mbay ak sidi ahmad wudismu ak cheikh mohammed gallo saw ak sëñ omar diop cheikh mahmoud mbegare cheikh ibrahim al baghdadi ñoo ñëpp ñu tekkalikoo lañ te ñëpp ànd maase euh, di njabootu sëñ tuba loolu lay tekki ne sëñ tuba ñëpp a jokkaloon diggante yëpp itam digganteem ñëpp rafetoon itam loolu moom lañ ci mën a kon ngir dugg ci waxtaan wi dañuy njëkk a wax ne mag ñi li tax seen relation rafetoon mooy ñoom dañoo bokk lépp ci diine seen delluwaay benn la fi aqdi lasari wa fiqhi maliki wa fi tariqi wa fi tariqati aljunayd saliki mooy ci wàllu pas-pas ñoo bokk benn école bu ñuy dellu muy madrasa ahli sunna wal jamaa te mooy ñi ñi ngir mi ñuy askan abul xasan ashari ci fiq ñoo bokkoon benn dellukaay te mooy ngiru mali ci tasawuf ñoo bokk benn déggin buñ ci am mooy tasawuf al junaydi kon dañoo bokkoon ay delluwaay lenn rek moo leen wutale mooy sëriñ kii kiyee sëriñam kee kee sëriñam loolu rek moo doon wute te loolu lu woyof la ci biir mag mi ba tax na gis nañ ci seen diggante dañ ko daa rafetal yii yii firndeel relation bu rafet bi doxoon diggante mag yi tarixa yi dama ko bëgg a tënk rek ci lu mat juróom-benn wala juróom-ñaari mbir mooy dañ daa jokkalante kàddu yu rafet kenn ku ne di wax ci sa morom lu rafet ñaareel ba dañ daa jokkalante ay hëddiya lu ci ne dinaa ci misaal ñetteel ba dañ daa ziyaarante ñeenteel ba dañ daa tuddante ay doom juróomeel ba dañ daa defante ay xasida kenn ku ne def sa morom xasida bu rafet di ko ci tàgg juróom benneel bi dañ daa ku ci faatu wala nga génn aduna ci kilifa yi dañ lay defal ya. lépp gis nañ ko di bindante ay lettre itam di jëlante itam ci ay soxna lii buñ ko détaillé mooy doon waxtaan insha allah bu dee li ma njëkk a wax muy kàddu yu rafet yi ñu daa waxalante nga xam ne kenn ku ne day waxal sa morom kàddu gu rafet loolu man nañ ci jël misaal mi jëkk ci sëriñ bi ak cheikh omar fouti cheikh omar fouti xam ngeen ne njëkk sëñ bi feeñ ñëw na fii mbàkke te bi ñëwee junj na mbirum sëñ bi loolu rek dem bokk ci tariqa tijaan sëñ bi booba njaboot ga nga xam ne moom la feeñ di ay xaadir waaye sëñ tuba bi mu demee bay way al jawharu nafis gis nañ mu waxat ko ci wax ju rafet wax ne وكان شأنه كقول عمر من بالتقى والعلم قد تأزر وكن إذا دخلت في الصلاة كمثل شخص كان في الوفاة فهذه هي صلاة المتقين المكرمين بالجنان المفلحين بيد الشيخ عمر الفوتي عندي وان تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين لسن بدلو سيتي بين وين وخني لسي عمر الفوتي وخن مو ميغا ku ragal yàlla buñ doon am mbubb da koo sol moom Cheikhul Fouti moom lam waxoon ca téere boobee na ko jëfandikoo kon gis nga kàddu yu rafet yi mu waxal Cheikhul Fouti foofu wax nañ itam jëlee naa ci suñu kilifa sëñ am sëñ Mbacke Abdourahmane mu wax ma ni sëñ Maxtaar benn si keroog ba mu joxee sëñ Tuubaa téere bu Cheikh Amar Fouti sëñ bi da caa bind aw bayit wax ne man sarrahu naylu asrarin ida nadara fala yufaariq rimaha sayxina omara képp koo xam ne bëgg na am ay secret nee na bu mu teqalikoo téere rimaax bi Cheikh Omar Fouti def loolu te moom bokkuñu tariqa kon loolu wax bi rafet na ñu ko bu ñëwee masalan ci ku mel ne Seydi Haaji si moom Tiwaawoon gis nañ Cheikh Omar Cheikh euh, sëñ Mouhamadou Bachir ak sëñ Madeleine Diop Dagana ñoom ñëpp kenn ku ne nettali na ne am na tawaatur mooy lu siiw la ñu bari dégg nañ ko ci aw Alaaji Maalik mu daa wax ne kenn ku ne ci nun mas naa def xëy na njuumte wala lu aaje wala loo xam ni da nga ca lu njuumte daal loo xam ne delluwaat nga ci ginnaaw ba mu des Sëñ Tuubaa moom yàlla da koo bind mu sosu ci ak njub ak mbaax loolu kàddu gu rafet la boo xam ni bokkuñu tarixa te gis nga mu waxal ko sëriñ bi ne moom dafa feeñ rek jub jaar ci siraatal mustaqim te loolu wax na ko waxaat na yeneen yu mel noonu wax na ne sëriñ Touba mbiram loolu Cheikh Mouhamed Bachir boo ko dàppee ci minal baaxal xadim ne sëriñ Touba ne Sidi Hadji Malick daana wax ne sëriñ Touba mbiram su ma ci amutoon benn tegtal bu may sëñ Mbàkke Bousso mi nga xam ne xam naa ko moom xam gu wér ànd gi mu ànd ci ànd ak sëriñ bi jébbal gi mu jébbal boppam sëriñ bi doyloo gi mu doyloo sëriñ bi loolu rek doy na am bu ma xawtoon xamutoon sëriñ na la boo xam ni si xaj mari wax na ko ci sëriñ bi te bokkuñu tariqa loolu doontoon tënk bu bu dox seen diggante laa bëgg wax gis nañ mas naa wax sëñ Mourou bëggee ne ko képp koo xam ni yaa ni wax benn baat bu yàq sama digganteeg Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu donte da ngay woote ne ci man nga aju itam xamal ne man maa man dañ naa ci yow ba set ci wicc sequma ak yow dara am sëñ Xaaj Malik mu wax loolu sëñ Mourou Bëggee mi ngi ci diraasaat xawlal muridiyya bi waa Rawdu Riyaahin génne moo tax gis nga sëñ Basiiru di doomi Sëriñ Tuubaa bi muy wax bay tudd Sidi Xaaji Maalik ci mbirum baaxul xadim da ko waxal moom it wax ju rafet kàddu yu rafet dafa xam ne al aalim al jalil wa cheikh al faxim al xaaji Maalik si مجدد التجارية في هذا القطر وإمامها السني الورع أحد أئمة المسلمين وجهابدة صالحين لولو هو جو رافت كان تي كليفه ديني بوك تي نيت ني باخ ني صالحون Yes, iya, tariqa tijaan di ab sunni yu bu sàmm wax kaddu yooyu ya, la wax ci moom te xam ngeen ne sëñ Basiru bu fekkoon ne diggante sëñ Xaaji Maalik ak sëñ Tuubaa xajam na wala mu am beneen mbir rek du waxe nii te sëñ Basiru du moom kese gis nañ aminu sirri Cheikh al muy sëñ Mat Lim Lam Diop Dagana bi muy waxee bay tudd sëñ Xaaji Maalik kaddu rafet la wax wax ne wa fi muhibbu wa qaribuhu qarabata diinin wa tiinin wa watan alxaaji Malick si radiallahu taala anhu wa nafaana bihi amin noonu la ko sunu sëriñ bi sëriñ jullit ñëpp di ku bëgg sëñ Tuubaa di ku ko jege ci diine ak ci ak ci wàllu askan ñu bokk réew mi itam alxaaji Malick si mi nga xam ne yàlla ko radiallahu taala anhu wa nafaana bihi noonu la ko Cheikh Mouhamadou Lamine Dagana waxee kàddu yooyu te loole day tegtale ne ci sëriñ bi lañ ko jàngee ñoom ñooñu ndax ku xam na si euh, ñi ñi delloo ak sëriñ Tuubaa niñ meloon ci sëriñ bi képp ku sëñ bi jubluwul ñoom duñ la jubluwul loolu amul si di la waxal kàddu yu mel kon loolu day wane ne ñoom ci sëriñ bi lañ ko jàngee loolu mënoon nañ ci indi lu bare bare bare gis nañ sëñ Abdul Aziz Si Cheikh Abdul Aziz Si Dabakh waxoon na kàddu yu rafet ci Cheikh Cheikh Abdul Xaadir waxoon na ne ku bëgg a gis kenn ci nitum àjjana na nga xool si abdou xaadir mi loolu kàddu la ni da ko wax daa ne da wax wax sax ne bu dee dox teewlu gi muy teewlu yàlla day siapa ci mu da ngay dox yu la abdou aziz nekkoon fi xalifa mohon waxoon ko si abdou xaadir mbàkke buñ delloo ca mag itam suñ tey ba ndumme marsin gis nañ lim daa wax ci suñ tubaab suñ tubaab ci moo ko cheikh lamine ne fu ko masaa gis day wax ne wa kam wa kam abin qad ala bibnin dura sharafin kama alat bi rasulillahi adnan wax ne baraana nit ñoo xam ne seen doom wala yëkkati nga xam day wane ne Sëñ Tuubaa ci moom lañ na meloon ak ñi ko xam ku mel ne Cheikh Abdoul Cheikh Abdoulahi jaamal gis nañ kàddu yu rafet yi mu wax sëriñ bi sëñ Basiru nekk li ko ak Cheikh Mouhamadou Diop Dagana wax ne bis dafa am taalibe bu toog fi moom mel na luy digal sëriñ bi di wax naan sëñ bi day dafa wax ne mbir dëpp yi ci yónnante bee ko ko jox nee na Cheikh Abdoulahi Cissé koy gënt ne ko nun de ay tijaan lañ maslan Cheikh Ahmad Tijaan yi danoo wax ne mbir dëpp yi ci am na ci yoo xam ne ci yónnante bi da ko jëlee lu gëm ko li tax nu gëm ko mooy daroon borom xam-xam buy jëfe xam-xam ragal yàlla teg léppam ci sunna si yonte bi ñu rafet njort ci moom ba li ñu wax ne ci yonte bi la ko jëlee ñu ko kii ngay dégg nga itam bu Cheikh Ahmadou Bamba itam moom it loolu rek lañ xam ci moom mooy borom xam-xam la buy jëfe xam-xam bu ragal yàlla bu teg léppam ci sunna si yonte kon bu nee jëlee na ci yonte bi ñu war ko gëm seen kàddu gu rafet boobu rek Cheikh si Cissé Diamal wax ko ci sëriñ bi yooyu yu bare bare bare lañ Cheikh Abdoulaye Cissé Diamal moomu wax nañ ne sëñ Basiru nee na daana wax ne ñaar yii de ku bëggul li ngay giñ nga génnaat ca nga delluwaat ci ginnaaw bul ko yi mooy suuf si ñu wax buddaay bul wax ne du ma fa bay mukk ndax doon suuf su ndongu ndongu mbay soo fa demee di nga fa jële loo xam ni léeg-léeg nga gis ne ku ne du ma fa dem te ginnaaw ba mu dem fa ngeen la fa ne waaye dana suñ tubaay itam bu kenn wax ne man du ko seet ndax mën suñoo gis ku ko seeti réccu ko ku ko seet rek da nga fa jëlee njariñ ci seen kàddu googu ñoom ñëpp si al xaadima jaxate kala gis nañ muy kilifa bu mag ci tarixa tijaan ñëpp xam ko danaa wax Sëñ Tuubaa fu mu ko gisee ne ko yow de doom nga woon ci noonu waaye léegi yaay sunu yaay sunu waajur yaay sunu bàyyi ci wàllu kawe ak pëstewu sëñ bi ak ak doxinu sëñ bi rek moo tax lu ko waxoon ne ko yow sunu dong nga woon mooy ñoo la daa jàngal xam-xam waaye léegi yaay sunu sëriñ ci xam-xam ak bayitam boobu wax ne min nii li ahmada bamba taariki naasi xayral ilahi fa am sa sayida naasi buñ ko taxoon bu bari la kàddu yu rafet lañ daa waxante ci seen diggante ci loo xam ni ñañ koy waxal buñ ko fekkee gis nañ ko mel ne Baye Niass ci ñi fi mujj ni mu meloon ak Cheikh Mouhamadul Fadel nga xam ne siñ suñu fan da ko yéemoon ci ni mu déggee wolof am na yu bari yuñ ci nett li ne mu suñu fan daa wax ci rajo bi da koy diglu diglu xeralu la ko daa def ba kenn mas na koy ñëw suñ fanduy wax mu di ko xamal muy wax naan kii de ni mu déggee wolof bu ko déggoon arab mu ne ko da ngay wax ne su bëggoon a waxee noonu arab ndax moom ni mu déggee wolof noonu la dégg arab kii mooy Cheikh Ahmadou Fall nga xam ne ni mu mel ci wolof noonu ci arab moo raw ñëpp ci luxal arab yi ak ci dàqale na wañ gis nga kàddu yooyu bu dee masalan li ñi wax ñëpp ay kilifa tijaan la mañ nga ne waaye mu ñëwee ci tariqa xaadir moom ñoom murit ñoom ñoom benn lañ nguroog sore, lañ cheikh tam dem cheikh saadu abi cheikh saadu abi cheikh saadu ñu gën ko min cheikh saadu bi seigne touba demé ci jigé ci geej gi bi se lettre bang ko bind té wax ci ñëbënu lettre bi lettre bi né cheikh ahmadou bamba mi képp ku ko bañ yalla ko yalla rëbb yalla ko yalla ngañ dal ni ko ci bir lettre bi bul faté xéetu yunus nabi sallallahu alayhi wasallam te buñ ma fàtte man tegtaloo ci moom ne yow yaa ngi mel ne la waaja waxoon ne xadafa zamaanu la yatiyanna bi mithlihi xanasat yaminuka yaa zamaanu xanisat yaminuka yaa zamaanu fa kaffiri mooy jamono bu waatee ne dinaa indi ku mel ne si amu gama mi ba yow mu xam ne lam ngi ñëm loolu teeñ ne mooy lam waatoon amul loolu moom du ma am loolu Cheikh Cheikh Saadu Abi moo ko wax ci Cheikh Bamba radiyallaahu anhu ba ci kilifa xaadir yi ci réew bi ku mel ne Cheikh Abou Mouhamad al Kunti ñu gën ko xam ci bu Kunta Cheikh maam bu bu Kunta moom Njaasaan gis nañ loolu mu wax sëñ ma fari Njaay te sëñ Basiru indi ko ak Cheikh Jóob Dagana te mooy wax ko ne ko tubaab yi day bu buñ jàpp mukk ne dañoo jàpp sëriñ bi di ko yóbbu déedéet ci liggéey la ne foofa day fu neex a liggéey rek mu dem fa da ko neex ñu yóbbu waaye bu ko neexul wax ca wax yu wax yu rëy rëy rëy kon loolu ak yi demee noonu day tegtale kàddu yu rafet yi daa wax waxante ci seen diggante bu ñëwee ci xarit yi daa jox joxlante loolu moom man nañ cee jël misaal rek ku ne xam na dégg na si Cheikh Abdoulahi ñas moom Kaolack tafsirul Jalaalayni bi nga xam ne moom la ko suñ Tuubaa joxoon addi loolu moom ñëpp dégg nañu keroog ba mu ko ko joxee dafa wax doomam Cheikh Mouhamadul Khalifa ne nga defal Sëñ Tuubaa ay way defal ko xasida tagg ko ci mu def xasida danañ ko indi léegi ci bu ñu àggee ci way yi kon gis nga foofu Sëñ Tuubaa dafa jox addi si am lay ñas waaye gis nañu itam si xaali Maalik itam jox addi Sëñ Tuubaa ab téere sëñ Maodo Touré man moo ma nekk li ne ma sëñ bi booba ba mu fay yónnee yaakaar naa ak ma la dund la doon sàkk te ko wut wër na ko fu bari amu ko mu sàkk ko ci alxaaji maari ba mu demee seen xaaji maari wax ko ne ko téere boobu amu fi waaye muxtasaram mi ngi fi mooy ko xaw a niroog moom dal di ko koy jox addiye boole ca ñaari bayit nag mooy la mu wax ne hadiyatun mujibuha tilaabu mahabbatin ya ayuha alxubaabu أدام ربنا لنا حبل الوصال وكفنا شر الذي عدا وصال mooy addi ji ma lay jox bëgg nga sopp ma nga gën maa sopp moo tax ma la koy jox loolu la ko wax sëñ tubaa tontu ko ci yeneen ñaari bayit ne ko jasaakum mu xayral jasar wahaabu wa fi safar wi daali laa tartaabu fa kayfa laa wal mustafa al mujaabu imaamuna wal xitla laa nahaabu mooy sopp gi ma la sopp moom te yàlla tax loolu moom ko sikk loolu moo nekkoon seen diggante gis nañ si abdul aziz sëñ sëñ maodo si mi nekk xalifam si abdul aziz si wax ne si abdul aziz bi mu nekkee xalifa ca 1957 sëñ Cheikh Gaynde Fatma da ko da ko yónnee ab taalibe boo xam ne da ko boole oto ngir mu di ko dawalal loolu sëñ Modou si wax ne boo ko nekk li boppam ak yu bare bare yoo xam ne buñ turoon dikk day gën a gudd bu ñëwee ci ziyaarante bi ñu daa ziyaarante itam muy jokkalante demlante bi ndax wax nañ ne ak mbokk dox ak wax borom daal moo fi loolu la daa wax kon ziyaarante bi ñu daa defante itam mën nañ ko tàmbalee ci sëriñ Basiiru ci minal baaxil xadim dafa wax ne ja Sidi Xaaji la wax ne sëñ Tuubaa siyaare na ko ay yooni yooni yoon astafurlah wenn yoon bokk na ci tudd jaarahu seyxuna fii xariyati Njaarne ah dafa wax ne siyaare na ko siyaare na ko dem na seeti ko ci dëkk bi ñuy wax Njaarne sëñ Tuubaa dem seeti Sidi Xaaji Maalik nekk fa ganam ab diir ba muy ñibbi Sidi Xaaji Maalik war aw fasam war lam war gunge ko masafatan tawila lu lu gudd lu yàgg yàgg maanaam mi ngi ñibbi mu ànd ak moom gunge ko lu sore sore sore sore loolu suñu basir nettali ko mi ngi ci mi nen baaxul xadim ba tey sëñ basir moom joo wax na ne man siyaare naa seen seen xaaji malik ay yoon ci këram nga ca ndar ak ca tiwaawan yépp fu ci ne siyaare naa ko bu ma demee damay teral teraanga ju rëy di ma laaj mbokk yi kenn par kenn kon ziyaarante bi loolu man man gis nañu itam Cheikh Mouhamadou Khalifa Niass moom Cheikh baayam yabal na ko bi fi Mamadou Anna Sëriñ jógee mu ñëw jaaree si sëriñ bi Cheikh Abdoul Aziz Dabakh moom ca jamono sëriñ Bour Moustapha la tàmbaloon di ñëw Touba di ziyaare Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci sëriñ Fallou ba ci Cheikh Abdoulaye ku ne gis na ñëw yi ñu fi ñëw ba Cheikh Abdou Khadir yaakaar naa wala boog ci jamono Cheikh Abdou Khadir boobu ah ba ci sama jamono Cheikh Saliou Cheikh Aziz moom ba jamono Cheikh Abdou Khadir moom mi ngi fi ko fii jiite koo xam noonu ñëpp ñu ngi koy fàtte bu kase yaa ngi ba léegi moom ci boppam Cheikh Abdou Aziz Dabakh nekk li na bu fa yoon fa sëñ Mbàkke soxloo demoon seeti ko kase yaa ngi fi mi ngi ñu bari gis nañ man seetaan naa ci dara nettali na yoon wu mas a ñëw gede doon jaare booba sëñ Moodu Buso mu sëñ Mbàkke Buso bi fi jógee ba wax ca ne keroog euh, ci sëñ Mouhamadou Mamoun Niang mu ànd ak moom ak sëñ Moustapha Diop julli ci ginnaaw sëñ Moodu Xari Buso wax na ne keroog julli googee bokk na ci julli yi ma gën a yaakaar ndax la ma ca yëgee mosuma koo yëg ci julli moom si Cheikh Abbas la ko loolu lu bare bare bare la bu ñëwee ci li ma doon wax ne mooy tudde tuddante ay doom loolu dañ ko laa def gis nañu loolu moom buñ koy wax ñi ci gën a jàmbaare ci li ma xam mooy sunu mbokk yi laayeen yi sëñ ma Cheikh Abdoulaye Thiaw laay am na kenn ci njabootam ku wax mi ngi ñi ngi ñëpp di ko gis ab kaset la ko wax ne sunu kër boo demee di nga ko fekk maam jaara buso di nga ko fekk cheikh abdul ahad di nga ko fekk cheikh sëñ moustapha bachir di nga ko fekk sëñ fàll di nga ko fekk sëñ sëñ sëñ cheikh mbàkke gaynde fàll ñëpp tudd na leen doom kooku def na ci jéego bu rëy rëy bu ñu demee fekk dara moo fi noonu fee ñu dëkk seen sunu mbokk yee ñu dëkkal muy ñi dëkk faas ture sëñ ali ture gis nañ mu tudde sëñ mouhamed xaw bala doom tudde soxna aw bala doom ca biir jabar suñu borom waaye am na ñu leen ca delloo tur yooyu tudd leen ay doom kon tuddante ay doom it lu amon la ci biir mag ñi te daa bokk ci li nga xam ne dëgëral seenu ànd daa defante itam ay xasaay kenn ku ne def xasida di tagg sa morom gis nañ loolu ñi ko tàmbale rek ci cheikh mouhamadou khalifa bi ma waxoon nga nah, xam ne cheikh abdoulaye cheikh abdoulaye niass moo digal mu def xasida ci sëñ tuba xasida bu rafet na wax ca ne ko أزكى سلام كطعم الشهد بالراح ينوب عنا وصال الراح بالراح فبلا عمله أزكى سلام كري المسك نفحته معطرا بنواحي الشيخ فواح شيخ تقي نقي عيلب علب فما ثنائي بمطريه أن حفتنا بكتاب لا نظير له أروى غليل صدانا بعد الله la zilta tarabu ma af'at wa ma fataqat aydil mushati bi ir'abin wa islah azka wa afrahu ma yuhdihi muhtasiban dabbat humayya id wafa bi afrahi wax ju rafet mu wax ko ci sëriñ bi xëy na bu ñu bëggee dugg ci tekk yooyu yëpp day day gën gudd mën nañu indi itam sëñ Modou Bousso mu sëñ Mbacke Bousso gis nañ ci ndigalu sëñ Mbacke Bousso mu ànd ak sëñ Modou Mamoun Niang siyaare ji Sidi Hadj Malick bañ demee sëñ Mourou Bousso defal ko ay way yu rafet tàmbale ci uhni bahiya salaamin qad tusaayiruhu tahiyatun mithla rawdin zaadahu zaharu لماجد فاضل من معشر الغرر بهم تمدح أهل الغرب وافتخروا حبر بهم مشكلات العلم قد وضحت للطالبين فبالمكنوس قد ظفروا tag yu am solo mu tag ko Sidi Hadj Malick sëñ Sidi Hadj Malick tontuwaat ko moom it sëñ sëñ Modou Moussa moom daal di wax ne ak sëñ Modou Mamadou Niang wax leen atat quray atat qurrata aynin wa najma saadatin li tajdidi aqdin kaana xayra uquli فبشرهما يا رب خير بشارة لدى الفزع الأعلى ليوم الشهود ولا زلتما كالفرقدين إنارة وملتزم وصف رضا وحميد wax lu am solo mu tontu leen gis ku mel baaba wul Cheikh Sidiya xasida yi mu def ci nga xam ne diwaan la woon yu bëri mu mu tagg sëñ Tuubaa bokk na ci la ca gën a fës te ñëpp xam ko xëy na mooy Cheikhu Ahmadu ni'matun awlaaha qadil xalaayiqa kullaha mawlaaha baaba wul Cheikh di ab xaadir sëñ Tuubaa di sëriñ yi di sëriñ yoon murid gis mu wax ne moom xéewal la koo xam ne yàllaa ko wàcce ci kaw te ci defal ko mbindeef yi cheikh ahmadu niamatun awlaahu hadil xalayiqa kullaha mawlaaha foofu la tàmbalee ak xasay bu bare bare yu rafet rafet yoo xam ni dañ ko daa jokk rek seen seen seen digal gis nañ cheikh saadu abihi xasida gi mu def ci sëriñ bi tàmbalee ci maadiluhu ajlaluhu min min minhu nasara fa asbaxa fi tilka albuxuri nudara nga xam ne xasida bu rafet ay bayit la xëy na guddul loolu waaye ju rafet rafet la wax ju am solo moom la ci wax sëriñ bi gis nañ ba ci waa réew mi ñu nekkoon i xaadir ci biir réew mi ku mel ne journun lii ak way juróom Cheikh Mouhamadul Fouti xasida yi daa def ci sëriñ bi te muy xasida yu rafet rafet bàyyi su journun boobu di Mouhamadul Fouti am na xasida boo xam ne sëñ bi ci boppam moom yër na ko wala boog daanaka ko yónnee ba sëñ bi daana ci tegtalu léeg-léeg ci ginnaaw mooy nit bu xasidaam di tàmbalee ila man xabahu llahu bil basti wal unsi wa xakamahu fi aalamil jinni wal wal insi ca biir xasida ga da ko wax ne fa subbu ala miskinikum fadatal bi na ngeen ko jox seen miskin bii Mouhamadou Fouti boo xam ne ne doom ji suur nun saa yu ma saa ñëw sëñ bi sëñ bi da koy jox ab kaas da ciy jëfandiku jox ko ne ko mooy la seen sa waju doon sàkk suur noonu moomu ku ne xam na ko mën a wayam keroog Cheikh Saadu Abi ba mu gisee dégg ay waxam ak luxal arabiya bi mu amee woon wax ne arabiyu dalla an ixwatihi noonu la wax yaakaar lu mel noonu may arab ni mu mënee ni mu déggee luxal def na xasida bu bari ci moom moo wax ne yaa xillu kam zaara hada al baaba min malikin wa min wasirin wa min jibin wa min malaki buntu Sëriñ Tuubaa wax ne fii de ku ne ñëw fi buuru adduna ñëw fi jinne ñëw na fi malayka ñëw na fi ku ne ñëw fi xasir oh. yu am solo yu rafet ba ci ñu mujj ni gis nañ sëñ Maodo Touré radiyallahu anhu wa ardaahu wa rahmu wa rahmahu rahmatan wasia hmm. nekkoon bu ñëpp xam di xaritu murid yëpp def na xasida ci sëñ Fallu xasida koo xam ne gisuma bu ko gën rafet ci xasaay yi wax dëgg yàlla mooy gi tàmbalee ne ataytu ila fa alfaytu sayyidan yudaahi rasulallahi bayna saxaabati damaa dikk Tuubaa fekk bi sang boo xam ne dafa mel ne rasulullahi mu toog ci biir saxaaba yi xasida bu mel noonu mosuma ko gis wax dëgg yàlla تفرست نورا من ملامح وجهه ويرنو لعرش الله في كل ساعة muy jëm da joxoon waxtu ne bët mi ngi jàll ak suñu borom te kii ab tijaan la xaal di ko wax ci Cheikh Mouhamadou Fall سلالة الشيخ الخادم المرسل الورى لأقوى من نهج موسل للسعادة خليفة الشيخ الخادم الفاضل التمام لآبائه الغر العريق السيادة وحنا تلو بري بري بعد تي شفاه الورى في كل نار تردد فضائلك العظمى لدى كل ساعة فشرواك في أرجاء دنيا دنيا فلم يكن من الخلق من داناك في أي قارة mooy kenn ku xaw a dend ak yow ku tolloo yow amul ci kaw suuf ci benn continent yi dem ci continent yi فبيدا وسودا نكسوا الرأس خادعين قالوا فأنت المستحق الزعامة بعد وحن هنيئا لكم يا أهل طوبى سكنتم مراكز قطبانية وولاية قصر بأم سلام شيخ سيد مودة توري بوكتين نحن تي داوري يا كنا la fi jugee defoon ko Cheikh Mouhamadou Fadil te yëmul ci loolu waaw mel na ne waxtu waa ngi dem bokk na ci lii firndeel diggante yooyu itam mooy marché yi bu fi mas a jógee kenn ci kilifa yi dana defal marché yi gis nañ sëñ Bakki Bousso bi fi Cheikh Abdoulahi Niass ak Cheikh Sidi Hadji Malick génn jugee ci menn ak da leen defal marché bu am solo تملك يا ثمة في ديننا الإسلامي من قلع قرني هامة الأعلام وحنا شمس وشمس عام شمس غابتا فبك الولاء لتكاثف الأغلام وقت يوقم ني لي وقت رجال ننقل لي وقت يوم تي كلفة رجال نعم. وحنا الإسلام تي بهم jafe-jafe bu rëy am na ci te boobu sëñ tubaa ngi fi bi ñu wax ne sëñ tubaa ngi fi waaye def ci ñoom day fekk mu neex sëñ bi rek waaye du sëñ bi bëggul loolu ñoom duñ ko jublu ku ne xam na ko ci kon lii daf fekk mu neexoon sëñ bi waa maalika li sunnatil garra wal qurba wala duafa wal aytaami nan nga wax maa lay fu riilin misla abdillahi fi yowmi alxurubi baasiril miqdaami noonu la la leen wax xasida bu rafet gis nañ Cheikh Abdoul Aziz Si bi fi Cheikh Abdoul Ahad jógee xasida bu am solo gi mu ko marsiyaale تمليتي لا تخشى يا ابن الخديب المصطفى العالمي يا عابد الأحد الموصوف بالقدم فهو ده تعمل خسر غرفة بجد سبورة mu def ko ci abdou lahab di ko ci marché di wax ne réew mépp ñoo am naqar ak tiis ci dew ci ci dem cheikh abdou lahab xasida bu gudd la gis nañ ba tey cheikh abdou qadir bi mu fi jógee cheikh abdou aziz defal ko marché moom it تمرتي كان تقيا عالما سنيا وخائفا لربه مرضيا فولا تمرتي gis nañ ba ci ñu dumb ji sëñ Maodo defal na marsiya sëñ sëñ sëñ sëñ ngeen sëñ Cheikh ngeen Fatma ak yu bare bare bare ba ci bu suñu bokk yene dëkk ci Louga wax sëñ Abbas Sall gis nañ Cheikh sëñ Cheikh Tidiane Gueye Moussa Cheikh Tidiane Gueye bi Cheikh Abdoulaye Tere Tere yi fii ci dëkk bi xësi dëggam ca def wax ne fakaanna fakaannama bamba alxadimu xaqiqatan qad aada shaxsan ismuhu abdul ahad dama ne cheikh bamba moo dikkaat jëm yoraat jëm abdul ahad gis nañ itam bi sëñ mut laa jógee moom mu defal ko marché bokk ci wàllu sëñ abbas loolu doon lu gudd gudd gudd la ba ci kilifa mu gis nañ cheikh Maodo Touré mu defal jugee mu defal ko marché bu am solo gis nañ ku mel ne sëñ xabaar mu sëñ Murtada bi fi sëñ Maodo Touré jugee moom it mu ko marché bu am solo loolu day war a ne jokkalante la ñee danañ ko def bari na ñoo xam ne itam kilifa yi gis nañ sëñ Saliou Touré defaloon na marché si Abdou Aziz Dabakh man sama dégg man mu wax ci ay ay bayit muy dem rek nekk noonu day daa jokkalante ay leetar na yónnante ay leetar tam ne ko sëñ Touba sëñ Basiiru wax na ci Minanul Baaxil Xadim ne ginnaaw bi sëñ bi jógee ci géej gi moo Seydi Xaaji Maalik seen diggante leekar yi mës ta dog lam tanqati al munaasalatu baynahuma baada gaybatihi ilal bahr noonu la ko sëñ Basiiru wax ila an tuwuffiya al Xaaji Maalik bi sanatay qabla Cheikh Xadim ko ma xaar mooy mësuñoo dañ di jokkalante ay leetar leetar yi moom bari na ba ci ay ay délégation lay lay doon xalifa euh, Njaasaan yónnee wala mu dikkal boobu gis nañ maam maam bu Kunta mu Njaasaan gis nañ ko ba tey Touba moom sax fi may jeexale mooy ci wàllu jëlante soxna gis nañ maam bu Kunta Njaasaan boo demee ci këram day gis ko kenn ci jabaru Cheikh Mouhamadou Moustapha nekk foofu mu yor loolu lu bari la mën na ci indi yenn yu bari bari waaye mel na ni waxtu yu moo jeex bëggoon nañ ko jeexal itam ci ne nun nga xam ne ñooy taalibe yi nag war a loo ca loolee mbooleem yi nga xam ne moo mën a xajamal diggante yi ñu teg ko fi suuf te muñ ko ngir yàlla da sëñ Tuubaa waxoon wasbir ala sabbi wala tujib ahad lu waay mën a wax ci lu bon boo waxee rek da ngay ni moom bal yactabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bihi al asxaaba loolu la ba yow li nga war a def def ko rek kii wax lu ñaaw boppam la koy wax dëgg la murit moom mënta muñ kuy wax ci sëñ Tuubaa ci boppam dara ni ma ko waxee léegi murit yi kuy wax dara ci sëñ Tuubaa su boo leen tàggu woon ñoom dañ la neexal yow nga wax leen ko ñoom te bàyyi sëñ Tuubaa loolu moom mooy indi jafe-jafe yépp moom saa yu tuddee sëñ Tuubaa rek jafe-jafe am waaye dama gis siyaan yii ñu def lu am solo benn waay boo xam ne am salaf yi la woon taxaw wax ne sayidna xuseyn bañ koy faat ca karbala bu ko fekkoon dana ànd ak ña ko doon faat dégg nga xeexal moom wax ji nekk ci biir internet bi ñëpp gis ko waaye ñu nekk ci diir bu diir bu néew ñu gis waaye ci boppam doon ab chia naka da chia yi dañoo jëflante moom jëflante bu rafet ba moom tu waxaat ne mu waxaat wax joo xam ni day safaala bu lay ndax dafa mujj doon ab chia gis naa loolu mooy bi solo koo gis wax ci sëñ bi xamal ne daa xamul sëñ tubaab sa yitte na doon fexe ba moom mu doon murid ndax li xam sëñ Tuubaa doon ku ko ci xam da nga nekk nekk murid na te sëñ Tuubaa ku lay wax dara ci moom kooka lam imaginé ci boppam ak sëñ Tuubaa bokkuñu sëñ Tuubaa jant la boo xam ni képp ku ci jéem a xajama dara mi ngi mel ne ku yor xëpp maanaam loxo suufam ngëpp suufam jàkkaarloo jant bi ne dama ko koy sànni ngir am ngir ngir lëmbase ko ak ngir nëbbee boppam suuf sépp ci boppam la ñu am kon nañu bëggoon na maa dugg ci wàllu boobu waaye xëy na fi xaj loolu njëkk lu baax a baax wasalaamaaleykum wa wa barakatu